wolof daa wax ne mag lu ko jógloo wax loo ko te itam sunu jitaay bi loo gis rek dafay leble mbaa muy fay bor bu dee ci dox bu dee ci wax lu man doon nit ki def ko jëme ko ci moom nitam dafay leble mbaa muy fay bor sunu tànk yi nag naam tuuti wut ndax jóg naa lu gën a jege xombal ak Touba te ba may waaje dem dañoo làmb lu wér jox ma ko waaye nag loolee la muy rëy rëy ci saayir lii da ko ëpp ci baatin kii toog di sëñ Fallou ay milliards jënd ko lii ñu def tey ji ci kër ji muy tëral ni tudd ko ba ko di def am nay bokk yu ko jige lool ci wàllu ndeyam ci wàllu baayam waaye nag mu jël tur wi jagleel ma ko ngir yàlla ak yonent bi Serigne Touba ak mbindum Serigne Touba xasida yi tegoon ma foo loo foo xam ne bi may ñëw léegi maa ngi ciy waxtaan ak sëñ Ndiaye sëñ Ndiaye mii maa ngi ciy waxtaan ak moom ne ko yàlla dewal na maa ngi woon ci xat-xat yoo xam ne su ma la yebaloon dong dina doy ndax Mouhamadou Sylla lépp lu nu bu doon téeméer juróom-ñeent fukk yi xam nga ko kon nag boo demee di nga ko mën a wax bokk yo waaye nag sama jëmm ji lu mu xat-xat-xat rek ma jéem faa doon doontu juróomi nit ndax lii kenn da ko mënut a fay kii toog kii toog ne ci sama ndijoor Mouhamadou Samb te li ngeen di doon doon ay gune dégg ngeen Mouhamadou Samb bi muy nekk jamono tudd ñu ko tudd kenn ci xasida yi mat Samb bi muy ne jamono tudd ñu ko tudd kenn ci xasida yi am te kon kuñ ko doon tudd ko tudd mooy El Hadj Ablaye Niang te fuñ ko mas boole booleeg El Hadj Ablaye du ñu nangu Modou jëkk a jàng ndax bu noppee boobu du ñu ñàkk mbooloo Ablaye day ñëw jàng ba noppi rek mu du ñëw door a jàng loole la Moussaoula mii bëgge woon Mat Samba tudde ko kii toog ba Mat Samba làqoo yàlla teg ma fi mu bëgge moo ko ba tudde ma sëñ Fallou mii toog kon nag wax ji jërul soril ah wolof nee na ku am ku du lakk a ah, danoo bëggoon sëñ Ndiaye tënk ci ay kàddu rek wax ko ndax wóor na yàlla li ma wax ngant yi ma gàllankoor su ma ñëwul woon bu ma ñëwee bu ñëwee dina fi wax lu ko jar. yéen ñii itam ñoo ngi leen di sant ndax xam ngeen ne ñii doomi xasaayit la ñu ngeen màgg ànd ak ñoom nekk génération ànd ñoom ci li seen baay bëggoon ngeen ànd ci bëggu ko ba bit ñee ñii ngeen maara laay àndal kii keneen laay àndal ba tex na loolu lépp yal nañu yàlla dimbali ci barkeb sëñ Tuubaa rek. xam naa ci biir njaboot gi rek daara joo am na ko fa yàlla jiital te léegi bi ma ko laa ko naan dama laa gëj a gis te yëgoon naa ne mi ngi toogoon nekkoon ak Mouhamadou Sylla ci Thiès waaw muy Serigne Bassirou bi xam naa ko bu baax ba tax na kon wolof dafay wax ne kulim juum ñu ne ko da nga doo juum da nga dul matal waaye bu nu xasee jël Serigne Mouhamadou Sammi ak sëñ Fallou moom mee nag dafa taxawee seen baay. aw aw xew baal ma tudd. aoudu billahi samil alim. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم xam naa kàddu yu gàtt lay doon rek ndax sëñ Fallou moom lii mu def dafa dëppoo ak hadis euh, ku la bëgg dangay won ñëpp ni yëg naa bëgg ga moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon ni wala tusahib man laa yara laka maa yaraahu si nafsihi bu leen ànd ak koo xam ni ni mu gisee boppam gisewu la ni ñàkk fayda mi ngi yem ci ànd ku la yëgut mot si la nag yàlla dafa dogal li ma sëñ Fallou jox kàddu gi mucc naa ci ñetti njëppite dañu wax ni booy wax nanga moytu ñetti njëppite bay wax te mu wér la ni li ngay wax du dëgg da ngay jéppi sa bopp ñi ngay waxal te mu wér leen ni li ngay wax du dëgg dañu lay jéppi yàlla mi dara umpul jéppi la wa ma naa illa bi ma alim naa seede ba ca gën nga seede loo xam sëñ Fallou sëñ Mat Silla fa mu tëdd tey yëg na ko ndax ñi faatu faatuwuñu yàlla dafa dogal jëmm ji di sëñ Fallou Ndiaye liggéey na ci xasida yi loo xam ne bu doon ci wàllu àdduna comme musiciens yi ñuy tudd boo demee Saalam ba ca këram di nga fa fekk ay disque d'or yu bari yum fa wékk ndax artiste mënta dem ba kawe niwoom ci li mu def ci yoonu murit am na ñu ko fekkewul nag waaye ñu ko fekkee dëgg-dëgg xam nañ ni sëñ Fallou moom li tubaab yi wax naan il a marqué son temps marqué na temps marqué goo xam ne bu yàlla dogalee mu teew ci teewaayu ku ko soppoon bëgg ko lool nga xam ne eggoon na ci sëñ Fallou foo xam ne ñaari photo yi mu jëkk a am te booba foto yi ci néeg ñu baree bari amaguñu ko booba yooyu tàmbaleegul xew sax sëñ Fallou dafa ñëw rek mu ramassé ñaari photo yi mu rëy ci sëñ Fallou lool ndax ba mu ko indee këram ci néegum ñax la ko dugal xam nga ne ay photo ko dugal ci néegum ñax mel na ni kala la jox la mu la jox loon wëlër la sopp mët si la nag moo waraloon loolu yàlla dogal nag mu sàmb muy sëñ Modou mi man it yàlla baaxe na ma ba bokk na ma ak moom photo fii ne maa ngi photo boo xam ne maa ngi mu sàmb la ak Mbaye Ndiaye Samb jàng yi mu doon jàngal mu sàmb ca Pikine photo boobu ñoo ko ànd kon di diggante boobu lu ma ci wax rek mucc naa ci ñetti njëppite yooyu aw turandoo nag dañuy wax ni bu génnee aw askan daa fay bor sëñ fàllu nag moo waral ma amanteeg sëñ Mut Silla ndax Mut Silla dafa bëggoon e, mut sàmb ba nga xam ni jànkat bu muy déglu nga koy roy sax waxtu woo tarxiisee rek ba indi leneen bu dee band bu mu doon déglu mën na koo dëbb mbaa mu toj ko moom bëggul kenn ku dévier ma sàmb lépp na doon Modou rek sëñ Fallou ñëw def ci Modou loo xam ne benn jànkat defu ko ci. sëñ Fallou ngi feeñee ci saraxus ma sàmb ca pikin dem na ba doon tàggoo di bëgg a dem sax waaye ndigal lu jóge ci magi jànkat yi moo ko fa ndigal la mooy Moustapha Thioune defe naa daan ngeen ko dégg ñu ko wax Gumba keroog moo ko téye bi sëñ euh, sëñ Fallou mi barkeeloo. te boobu euh, dëj bu na supporter mu samb yëpp fees sëñ Fallou ba mu barkeeloo la la ñu ni jaratul ñuy jooy mu samb kii moom mën na ko remplacer keroog la yàlla dogal biddi wam fekk ci xasiday Sëriñ Tuubaa yi ba kuy jàngaloo Timóodu rek moom ngay wo su ko defee nag wëlëre googu bu dee sax ba yàlla dogal tey ñu toog fii ñi mu tudde woon ay soppeem teew nii di ay mukallaf dem ba ab setam tey moom la ñuy tudd te yonent bi salaa salaam wax ni almaru maa man ahabba nit ku nekk yaa ki nga soppoon yéenay bokk fu ngeen nekk yowmal am su ko defee kon cofeel defa foor lool li ko fi jëlee nag ci laay daaneel sama kàddu mooy ah faatu moom kenn ku ne am nga ci sëb cër doomu aadama na xel mi dafa dal ba bu nit faatoo day yërëm ki faatu defe ni ki faatoo am problème fekk moom mii dund moo am problème ndax ki dem fi mu ne mucc na ci loolu ñuy wax sukkuraatus ndee passé na ci at mi biir bàmmeel ya ca xew passé na ci ar lay xew yëpp ki faatu moom passé na ci ba bal moo tax yonent bi saa xam ni annaasu niyaamu fa isaa maatoo intaba'u nit ñi dañuy nelaw bu ñu faatoo dinañu yeewu su ko dee kon kon kii dund te xamul kañ la xamul fan la xamul nan la kooku moo war a tiit waaye sëñ ma si la moom fa mu ne moo ñu gën a nekk à l'aise moom su dee nag la dof ba waxoon rek dof bi daa toog ci garabu pénc mi ah waa dëkk bi sanc seenum dëkk lépp bees sàkket yu bees néeg yi bees lépp bees borom dëkk bi joxoñ aw yoon ni yoon wi moo jëm ca dàgga ja wii yoon moo jëm ca teen ba nee na yoon wi moo jëm ca marché ba ñuy bëgg a ñaan dof ba ne leen ah ana yoon wi jëm ci sëg ya ñu ne ko ay ah, mar de Italie sanc suñu dëkk bi ngay gaat ngay sëg mu ne ah kon naru leen fee yàgg bu ngeen fi yàggee rek yoonu sëg dina am su ko defee nag kon loolu mooy wane ni mbooleem ku fi nekk des fi ku ne di nga dem su ko defee ginnaaw dañoo nekk ci yoon man day ñemewuma joxe micro bi te yëkkatiwuma bayit ndax xam naa dina bégal saay ah yoon sax nag sëñ Fallou yëkkati may waxat dara ndax man xasida yi fii ne lu ma ci am jëmma ma jaa ngi xaadir laa def fukki at ak juróom fu ci ndaanaan di dem ma dem fa saat bu sàmb mii baayam mbay njaay sàmb jàng yi mu mas a am su sa mënta dem man lay bind lettre kon sori woon naa ci jàngi xaadir 15 ans laa ko def keroog bi ma sàmb ne la yee 76 ma bëgg a dugg ci njàngu murit dikk ci jëmm ji mu ne ci tableau bi xew lool ma ne ko xasaay di dalaa bëgg a man mu ne ma day bu doon lam bu ñuy takk dama koy wekki rek weyal la ko waaye ma ne su ko man te tërbiye woo ko ñu koy ànd maak moom mu def ma ni boppam boot bi départ maa moom ci kanam dëkk bu ñuy dem bu dee benn néeg ñu bokk tëdd ca néeg ba bu dee benn lal ñoo koy bokk maa ngi moom eh, bu dee ñaar ku ne tëdd sab lal ba ba jàng jot ma lu mu ni ma demal tàmbali dem na ba mujj jàng yi sëñ Fallou am dañuy defee ne maako war a tàmbali ma ciy dem ba yàlla may ma ci barke moom ak ñaanam alaaji Xaadim Mbàkke conférence bi ñëpp dégg jël ma ma doonub jàngkatam kon defe naa ni lu ma am ci xasida yi jëmma ma kon ah, terbiyew lu waay bëgg lu ne da ngay nangoo toppee su ko defee bayit wi may daaneele rek ah, ci wakkaan xàqan la jàng ko nag xaju fi waaye am naa ci ndigal ndax sëñ Modou Bousso Dieng moom Cheikh Modou Fadal daf ma noon ci Amérique ah, fekk fekk mu joxe ndigal ne waaye fàttu naa waaye ku fi ñëw neen ko fàttu naa ma ñëw yëgu ma ci dara toog ci salle bi tàmbali wakkaan xàqan di ko jàng ba yàgg mu ni tël ñëw toog ci canapé bi ni fàttu woon naa waaye xasida géem a génne sëñ Tuubaa da ci wax ne mun naa laa xaari sul xoroofi bi maa yee fooxu zanna min yàlla na nga defal képp kuy jàng xaraf yi lu kawe njortam ne sëñ ma sàmba ni ca toon ni ko am ah, mbàkke ñu ko dul jàng nag mu ni ko ak képp koy déglu sëñ Modou ni ma gees ni ma jox naa ci ndigal fu doo ngay dajee ti del jàng wakaanaa xan ndax am na yoolub jàng am na yoolub déglu bisimilah salaamaaleykum wa rahmatullah Baye Fallou ñu ngi leen di nuyu yaag Baye Ndiassé te di leen ndokkel te di leen jaajëfal ci turu Serigne Bassirou Sylla yi nga xam ne moo jiite njabootu sëriñ Mouhamadou Sylla gi nekk ci seen kanam te fa leen seen way jur wa féete woon mu féete leen fa ndax ñun ñii ñu dëkkal fii ci koñ bi euh, Baye Modou bi ñuy xamante ak moom it léppam ci Basiiru mi la nekkoon xale yi yëpp nekk ci mu fàllu mi ca moom la nekkoon di jàng métier mi ba fa jógee yàggut Modou mee tamit noonu kon sëriñ Basiiru moo yëkkatee kàddu di sant te am mbégte ndax ni nga ko waxee xam na fi nga toll xam na fi nga toll bu baax a baax xam na say xat-xat kon boo jógee ba taal soo oto ñëw ba fii xam na ne wëllëre wa nga seqoon ak magam ja moo ko waral kon nee na xale yi nii nga leen bàyyee xel sant la ci moom itam xale yi nee na ñu ngi koy sant sëriñ Modou ak sëriñ Fallou sant nañ seen basi sëñ Basiiru mii ndax nee na fa leen seen waajur féete woon fala leen féete di leen taxawu te di leen nemmeeku kàddu yooyu rek lañ doon jotal sant la sant sañ basi wasalaamaaleykum